ma waxati Bougane yi jóge fële kooku nag moom man moom laa leen wax gis nga gars yi ay Bougane Bougane tojul sax seen buntu kër wallaay billaay wallaay mais yéen promotion bi ngeen di may Bougane man bu mu doon Bougane dama koy dolli Bougane moom moo moom moom moom Bougane waxuma parrainage Bougane du parrainage Bougane Bougane ab journaliste la woon journaliste journaliste simple joob moo may xaalis Bougane Pape Diop ci affaire d'accord yi d'accord xam ngeen d'accord public publicité yooyu ñu doon taf Bougane ab journaliste la bind bindkat toog di yor kii jaar na wal fajiri daal fépp comme ça njoogu la wala comme keneen rek saa njoogu wala keneen ak keneen journaliste simple la yéeg ak wàcc dugg ak génn moo ko dugal mu dem ba xam Pape Diop maire de Dakar mu jox ko fa ay posters yooyu ñuy def ci biir Dakar loolu la commencé doon am xaalis kon Bougane tey la bëgg a ñëw bëgg a faire l'intéressant Bougane mënul sax gérer ñaari jabar yu mënu ko donc ngeen nekk fi nag vraiment Bougane di wax waxi dofam ngeen bu ko débat da ngeen koy may promo quoi da ngeen koy may promotion te Bougane war am promotion yéen yéen li ngeen di ngandalee Bougane Bougane ngandeewul jegewu fa sax Bougane ngay gise ay mu nekk en ligne ay ay di saar moom ay ñoom Hélène Gaye ay ay ay ñoom Gabriel Kane foofu Bougane ñooñu la c'est-à-dire boo promotion boobu mais may leen ko Gabriel Kane mais may leen ko Adji Sarr mais may leen ko euh, Hélène Gaye ay waxtaan Bougane dafay ne Hélène Gaye déggalu ma waaw ma woo Bougane ma ma wooyee Bougane après Bougane dugg nga koy ñaan Bougane naan Bougane naan déedéet kon Bougane fii ñàkk fayda yooyu la nekk mais yéen ngeen bëgg a valoriser Bougane bu ko def ay nit ku amul benn njëriñ Bougane du tus du nix du dara dara dara dara Bougane mi ngi ci xoolal mi ngi ci groupe WhatsApp yi di waxtaan groupe WhatsApp yi ak cagajeeg cagaji sew seeg ni taxawaalukat yeeg tux kotu sàngara naantatu sàngara beeg tux kotu yàmba fa lay nekk di wasa di WhatsApp ak ñoom ñu koy benn benn la mun ah waaye yow aji saar waaye a bëggaan bu nga ñëwee ba jox ma cinq cent mille yi daanu sama kaw eh, bul yàq sama dara <laughs> kii a ah yow lu mu tudd di Gabriel Kane ah, waxoon na ma ko nee na boobu moom <laughs> bugaan ci yooyu la nekk yéen tamit da ngeen di jàpp nit bu tekkiwul dara di ko tingum ba muy mbëkk asamaan na jàpp ni moom moo rey gaynde moo tax <laughs> bugaan kay fépp day profito ku amul benn ful la ngeen mun ko multi war ko multiplier par zéro defu leen ko ngeen defi ah Bocar Bocar man dafa ah, ma xam ni comme tekkiwu ma dara bu guddee ma dem ci Adji Sarr dem ci ñoom Gabriel kan dem waxtaani fee ñoom Hélène Gaye ñu nekk ci ay groupe di di xëccoo ak xuloo ak ceeb bi tooy na def ci limon def ci kaani bu ñu xëyee ngeen ngeen taal ma projecteur def ma star ah damay doon star moo tax Bougane moom boo ko mayee day profité parce que bu yëngalee ñaari moo lay def rek sànni leen ngeen nekkaat comme yax di débat di débat moom muy gën a kii suba day génnaat de suba buñ ko waatee micro waaw dama ne man sàcc moo gën fen fen a gën sàcc <laughs> bàyyi leen fa ngir nekk bukaat eh, bukaat mais muy xujjal di ko mais xujjal ko lii fu ngeen ak fa mu nekk jegewul bugaan du dara dara dara du dara du dara day bandi bandi lu ci yéen nii rek man Bougane ba mujjee wax ma wax naa leen ko mujjee wax dama laaj leen Bougane Bougane wax naa ak moom man ak moom téléphone. fa la nekk ak sama bakkanu doom ak sama bàmmeelu jabar ak sama bàmmeelu jabar bi ma taxaw moo la ajuma la ajuma ajuma maa ngi nii taxaw si sama ba ak sama bàmmeelu jabar ak sama bakkanu doom ma ne ko Bougane bakkanu doom ak bàmmeelu jabar ko nafata léegi yow bak li may wax nii yow bakkanu jabar bakkanu doom day tax yow boo fee sa doom sa doom de. non waxee ma foofu ma ne non dànk dànk rek sama bàmmeel maa ngi nii taxaw sama bàmmeel eh, boo taxawee sa bàmmeelu jabar rek loolu ban waat la ak sama bàmmeelu jabar bi ma tax ban waat la mais noonu la man ak bugaan téléphone ñuy waxtaan man na moom ni ajuma maa ngi nii taxaw sama bàmmeelu jabar <laughs> ma ne ko luy bàmmeelu jabar ban waat la loolu da koy naxee sénégalais ay ba sama bàmmeelu jabar ak sama bakkanu doom <laughs> ak sama bàmmeelu yaay c'est-à-dire c'est-à-dire quoi <laughs> boo taxawee sa bàmmeel jabar fen lan la bàmmeel bi day rës wala day daanu wala yàlla dafay dugg génn jabar ji daw ak moom wala c'est quoi ce genre de waat la di ndax sénégalais nii ay waxi dof la loolu du waat mais bu may wax ak moom mais day xam ni ponkal mooy wax ak moom boo ñëwoon ndey ci appel bi da nga xam ni kii maa ëpp valeur parce que man waxuma di ko waat dama dama am lu ma ko wax mais mais bu may wax ak man may wax day da da doon jéem a xool nu mu nu mu mun a am benn crédibilité sama kanam. léegi man man bu ma yeewoo ma gis ngeen jàpp bugaan boobu bu ko ngandal quoi bu koo jël bu ko yéegal ci benn niveau ak Sonko muy jéew ak ay film ngeen may def sax damay toog di leen seetaan di reere naan cay Sénégal dana dañuy suul daanaan daal suul li baadoo la man mi daal jàppee ma dara ki ñu jàppee dara nii kii bu taxawee ak man day di waat bàkkanu bàkkanu doom ak bàmmeelu jabar ak lu ne lay def xam na ma bu baax dofut jënd jàpp ko bàyyi leen ñi ngeen di may promotion bàyyi leen ñi ngeen di may promotion ay bugaan bu leen may promotion ay bugaan di ko débaayee yéen xanaa amu leen loo leen di wax yéen boo leen di yeewoo amu leen loo di wax wax leen ci man sax wala man léegi ma chaque jour ma ngeen dóor leen benn tot ak ngeen di wax ci man parce que pour pour mun pour rek détourner débat bi ngeen bañ a wax ci bugaan léegi léegi bu bu bugaan waxee tot na ngeen ma na ma ko baal dinaa génn wax benn toj-toj pour toj-toj bu gën a garaaw bu buggaan ngeen fàtte bu buggaan di wax ci man parce que mënu ma nekk ci réew mii am ndey ak baay ñàkk ngir bu ma ñàkkal fayda bugg fullaal buggaan te li buggaan di def ñi moo ma ko def ñetti jigéen yu bokkul ku ci nekk biiral na la kenn ka doom jàng Amérique New York kenn kaa ak ñeneen ñaa ngi senegal ak ñeneen ak ñeneen biiralu ma kenn biiralu ma kenn moom ñett la biiral tëddeewu ma Adji Sarr te tëddee na ko jox ko cinq mille guddi mu dem kër saar ba bëccëg mu dem kër Sonko di ñaaba ñalle ba njàpp ko newuma ci groupe whatsapp yi ñàkk fayda moom mi ngi ci groupe whatsapp yi di waxtaan ak ay benn Gabriel Kan ak benn Hélène Gaye boo leen ma bëggul fu ñàkkal fulal bu ko ma génn nag commencé def camay tak tak man tamit yu rajaxoo ngeen ni may waxtaanee comme da a yor ay làmmiñ rek di wax gën du man du ñàkku ma ndey ju baax ba nekk fi ngeen di waxtaanee ñeneen ñu ñàkk fayda te doo ma waxtaanee man loolu nag dinaa ci jóg te dinaa ko lijjanti ba ngeen toog di ma waxtaanee man tamit comme dangeen ngeen a yor ay làmmiñ yi wax rek di ngeen ma wax par force doole ma am wala ngeen yemal ngeen yemale ñu ñun ñëpp ngeen yemale ñu ñëpp mënu leen ko nag ñu ñu ñu nokko sant rek mu saf sàpp ça y'en a marre la len war ngeen lekk ba seen biir yi fees amu leen lu ngeen di xalaat toog na waaye waxu de boucanerie wax waxi dof dañ toog di di ci ratatate eh, yow yow bu la ma fonton ah man la yéen nag sañu sañ sañu jàmm du yàgg léegi lañ fi baalante ak mais sañu jàmm du yàgg man ak yéen baal naa leen baal leen yàlla nañu yàlla boole jégal ñu fekk ay déwén di déwén